soble ak pomme de terre nekk xuus nag gàññ ci marché bu Grand Yoff Mouhamed yor ak place ci boobule marché di dalal xelu client yi ginnaaw bu mu amee stock bu takku. pomme de terre moom na euh, soble muy de terre xaw ma lan la wax moo cher saako pomme de terre moom ñu ngi koy jaay euh, jël nañu suñuy bagages SOS teg quoi di xaar di xaar gars yi mais nag bu ñu sukkandikoo ci Moussa di beneen jaaykat la mu xamle moo di ne si feetu korite ren bi njëgu soble ak pomme de yomb na. boo xoolee soble ak pomme de terre wax dëgg yàlla mu bëri na si marché bi torop fi mu nekk nii ba xoolee prix itam échange wax dëgg yàlla mu yomb na moom soble bi yomb na pomme de terre bi yomb na prix bu dee soble bi ñu ngi koy jaayee six mille bu dee pomme de terre ñu ngi koy jaayee huit mille cinq cent. waa client yi waaw am nañu ñëw ndànk-ndànk am na ñoom dañuy laajte boo leen waxee prix naa ñëw mais xam nga instant yi comme que weer dafa xaw a jote ba pare gars yi jot xaalis mais xam naa dañuy xaar ba avance ba pare gars yi bëri fayeeku aussi itam donte foo sànni sa gët ci marché bu Grand Yoff ay magasin yu ñu riime ak ay saako soble ak pomme de terre ngay gis Binta di ab client ñu fekk ko muy ndugg gis ne njëg soble bi ak pomme de terre bi mënoon na gën a wàññeeku dëkk bi de dara yomb fi daanaka man ndugg mi léegi lépp a cher pomme de terre bi yombul soble bi yombul ni mu waroon a ndugg bi cher na trop daan daan gën a yomb ni ñu ngi koy jëndee presque kilo quatre cent pombiteer bi moo cher quatre lay jar soble bi tamit cher na gën na dina daan gën a moyen na. fii ci marché bu Grand Yoff soble ak pomme de terre bari na fi lool bu ñu sukkandikoo ci kàddu jaaykat yi saako soble bi ñu ngi koy wécceekoo junni jàpp junne ñaar téeméer waaye bu dee pomme de terre bi saako bi mu ngi toll si junni ak juróom ñaar téeméer.